dikkati naa kuy sénégalais day mën ngaa jóg Coupe jëm Sénégal amati na ndam tribune sport daal di may xamal ne ca Maroc la ñu daal di dem ñu daal di fay teg lu toll ci juróom-ñaar ci trophée Sénégal daal di raatale juróom ya Sud Quotidien daal di may xamal ne moom Sadio maane day mooy ballon door bu Afrique tribune sport daal di may xamal ni bii mooy ñaar yoon moom Sadio Mané muy am ndam lii ci dénduk Afrique le thème mooy yéen kaay ne Sénégal kay dafa daal di raatale le soleil yéen kaay ne daanaka lu fa doon trophée réewum Sénégal daal dina koy fuuf las yéen kaay ne laf cet la fa Sénégal def laf cat rek l'info yéene kaay ne ma ñaareelu saakar bu baa ngi nii gannaaw coupe d' afrique des nations bi nga xam ne jël nañ ko sénégal amati na ndam ci dénduk afrique ci wàllu tàggat yaram te ñoom Sadio Maana ñooñu ko amal sag gi mi ko dañee daal dina ko juróom a ngi nii de réewum sénégal daal koy am tribune sport ne ko banxal say baaraam Sadio Maana daal dinañ koy tabbat meilleur joueur africain mooy ballon d'or ba de Aliou Cissé ñu daal di koy tabb entraîneur bi gën a xarañ ci at ñu ne mooy a équipe bi gën ci at wi Pape Ousmane Sakho dugal bii wi dàq ci at wi Sadio Mané ci record ne doyalu ma alerte quotidien la duufoon ca nag ba day gaayu Sadio Mané yi jël nañ ko bés bi le jour daal di may xamal ne ñoom suñu gayndee kay daanaka dañoo toog ci combax ndalu Afrique Walf Quotidien daal di xamle ni loo ci manti dee gis Sénégal ci boppam dafa daal di dominer ci dénduk Afrique Tribune Sport ne amati nañu ndam Sénégal ci CAF Awards lañ tegoon ci juróom ñoo jël juróom ya le vrai journal ne duñu teree luñ bët suñu jafe-jafe ci réew mi ñu daal ci liggéeyu procureur ndax nag procureur yi ñi ngi xool bu baax a baax luy raxas der yi ndax nag fii ci Sénégal li ñu duppee bari na ci ñoo ne bu ñu jëlee kaddu wax ya du toog du dëju la ñuy andi ay layit gars yi dañ ci am ay laam-laamee wala ñuy weddi tuuma yooyee le vrai journal ne nañuy traité ay dossier gars yaa ngi koy critiqué lool source aane ma en tout cas bu moom sori na sax ak luy jeex ndax nag ni ki démb avocat yi jot nañu autopsie bi avocat François Mancabou ci boppam ne rapport bi beneen autopsie boo xam ne moo dal seen xel ñoom njabootu François Mancabou document bi nag nee ñu dafa daal di technique maanaam autopsie ba lañ ca def ñoom avocat demuñu ba koy bëgg a moo tax woolu nañu ay médecins yoo xam ne daañu leen jàngal autopsie boobee maître Amadou Diallo ne dañoo bëgg ay analyse yoo xam ni ci deret di leen koy des ci François Mancabou ndax nag am nañu ku ñu dee ci nopp bëy te mu leer lool ne moom François Mancabou mii dañu ko daal di drogué libération yéeni kaay ne en tout cas gars yi bëgg nañ jaar pas ba faatu gi daal jëm ci Idrissa Goudiaby bi daal di may xamal ni beneen autopsie bi ñu def xam leen na ni bi fital moo ko def fital la boo xam ne nag du bu ndaw bu mag la te it fanu ko tiiree soriyantoo na lool ak mu taxawoon maanaam jege wuñ ko daal di koy faat tur bi ne gannaaw loolu lépp mën nañu soobu ci campagne bi yéen kaay bi dee média bi ne ma ki bokkul te di campagne mooy Bougane Gueye Dany ni ki démb ma nga woon ci karawaan diggante Pikine ak jàmm gën moom Bougane Gueye Dany daal di joxe benn moo d'ordre ku ngeen woteel baax na bu mu doon président Macky Sall rek Bougane ne président Macky Sall li muy jëf ci réew mi bii ngir daal di lëndëmal liggéeyu ñeneen dinaa leen ko wax moom gouvernement gi ci boppam dafa teree maire bu jàmm gën mu jënd ay moto pompe ngir tàqale askanam ak mbënd bugaan ne dara xeex président Macky Sall rek ba mu tàqalikoo ak ñun moom président Macky Sall kay ngelawal jàmm na dem rek bugaan gay dani ci l'évidence yéene kaay ne gëm sa bopp tere nañ koo bokk ci la élection waaye nag nekkuñu ay candidat duñu teree dem ci askan wi daal di xool seenu njàmbat ñu daal di koy jibal ci kaw ndax bari na loo xam ne nag gaa yaa ngi def kéemtalaay kàttanam ngir xoqatal Bougane Gueye Dany génn nag pàcc ci opposition bi it di ko tam waaye njiital gëm sa bopp ma ngay résister ala accu 24 heures yéen may xamal ne moom Bougane kay nekk na absent bi gën a ci élection yi ci Facebook ci boppam gaa yaa ngay di xamal opposition bi naan leen bu gëm manipulation bi ndax nag ña bëgg a taqal Bougane Gueye Dany di xam leen président Macky Sall lay liggéeyal lii lépp nag ngir bëgg a tàqale bi bu leen ko nangu loo ci man dégg ña nga jëm assemblée moom assemblée nationale boobee Pape Diop lañ ca bëgg mooy muy assemblée boo xam ne askan wi dong lay liggéeyal réew mi quotidien daal di may xamal ne mbaa duñu jëm ci élection yoo xam ni gars yi cay participer duñu bëri critique yéen kaay ne élection bu mës a am ci réewum Sénégal lenn yàq na ko muy toog bañ wote ji waaye tam leneen am na loo xam ni daal dinay bari lool ci élection ci réewum Sénégal mooy lu ñu duppee ay vote sanction mbaa du am ci élection législative yi critique yéen kaay daal di may xamal ne ca Touba moom ànd falaat Macky daal dina ñuy wan gannaaw ko procureur Ismaïla Diallo mu daal di ablé Abdoul Mbaye di xamle ci mbënd yi ne président Macky Sall ci boppam moo andiwul saafara ci jafe-jafe yi booba Barthélémy Dias ngay sànni xeer waa direction générale bu impôt et domaine Vox Populi ne ma Barthélémy Dias kay dafa dem renfort ca Ousmane Sonko ba nga xam ne ca Matam dañu ne titre foncier bu président Macky Sall la tribune yéene kaay ne ma Barthélémy Dias daal di fay xamle ni fonctionnaire yu impôt yi nga xam ne ay milliardaire lañ ñoom ñëpp ay sàcc lañ l'enquête quotidienne ma dikkaatal bu baax a baax ca nañu dalal Ousmane Sonko démb ca Matam ay sànni xeer la lañ ko daal di teertoo moom Ousmane Sonko force de l'ordre yi bari wuñu woon dañoo andi ay ranfor nag ngir mën a dawale ndaw yi Ousmane Sonko ne maatam président Macky Sall moom ko du titre foncier te tey jii wane ngeen lu ni mel tey jii caravane baa nga jëm ca fiefu Farba Ngom le témoin yéen kaay ne Farba Ngom xuppu na de waaye jariñu fi dara Ousmane Sonko démb daal di nañ koy teeroo ni ñuy teeroo buur ca maatam bés bi la journée moo taxit Ousmane Sonko ak Barthélemy Dias daal di nañu jël ay missile daal di koy dalal ci kaw Farba Ngom direct news ne ma campagne baa ngi wéy Messi di Cheikh Ba daal dinay dalal mbooloo mu sakkan lool ca Medina booba vox populi ma mag may xamal ne moom mi Mimi Touré day daal dinay mokkal Saalum ba maar day taali gaa yi nag dem fekki benn bokk yaakaar wuy ji ko ci wooteem boobee l'exclusive yéene kaay ne ma waaye campagne bi day daal dinay tàng lool ci waa benn bokk yaakaar am na ci ñoo xam ne ci ñoom metti na fa Daaru Musti moom daal dina ñuy weddi moodu Diagne Fada ca Parcelles Assainies gaa yi dañoo daal di dëddu Amadou Ba waaye Ousmane Faye ma ngay daal di xupp ma ngay xam ne nag bi ci boppam amul programme saaga ñi fi toog rek Birahim Faye ne lii mooy programme opposition bi tribune yéene kaay ne Queen Bees direction des services fiscaux day daal dina ñuy weddi waxam ja am na société boo xam ni moo tax mu daal di jot redressement googee tribune yéene kaay ne ma lu waay waxoon na ca dellu moom Idrissa Seck tey la ñuy vaar ca législative yu 2017 yi yàggul ca campagne bu Mankoo Taxawu Sénégal juróom-ñeenti fan ci weeru sulet moom Idrissa Seck ma nga fa ni woon président ki sàll lu dul boppam yitteelu ko bu dee sénégalais yi moom la ñuy xaar ngir suqaleeku daanu yéex a jóg politique ci lay gont moom président Macky Sall activité gi mu gën a mokkal moom président Macky Sall Idrissa Seck doon wax ne ci yooyee temps mooy nag daal di ay adversaires yi nga xam ne njortu nañ ñii mën nañoo am ndam ci kawam sa Seck ne leen waaye nag bu ngeen xoolee jafe-jafe yi nga xam ni sénégalais yi ñu ngi koy dund ci fun mën a féetee ci bépp boor naqar googee bu ngeen ànd ak moom ba mobiliser ndam rek ngeen di am ci kawam ndax nag président Macky Sall nguufaan nguur gi la bëgg waaye nag duñu ko nangu ndax ci kanamu askan woo xam ni weddi na ko moom président Macky Sall la ñuy fekk Idrissa Seck ci yooyee temps mi nga xam ne ñu ngi ko doon jéem a toppee caisse d'avance yi ne ko askan wépp a ngi ànd ak yow soo xoolee mbooloo mii xam ne yow la ñu àndal tey daañu xeex lépp lu jëm ci injustice bu nekkee tey jii danga am jafe-jafeek yoon dafa fekk nag nangu woo ànd ak ña nga bañ a àndal soo sukkoon raam jébbalu ci président Macky Sall tey jafe-jafe yii doo ko am Idrissa Seck moo doon wax lii ci 2017 yàggul tribune ne balaa ngay dem jàppal ne accident bu métti daal dinay am ci nooto guy jama fukki bakkan daal di cay rot ci saasi ay gaañu gaañu yu métti bari lool daal am ci boobule accident kaay nañu dem ci tës bi niki tey ca ora banque day benn liggéeykat moo fa doon def maar day taali ay client am moom agent ba nag da doon jël ay fraudeur di leen jébbal ay information ci client bi gars bu ñu sàccee xaalis bu am ca commission moo taxit borom compte yi dañuy topp seen am am te ci bàyyi xel tey ñaan yàlla mu suturaal nunu te nu yendoog jàmm ak salaam